bu ñuy wax xaax coy benn wel ngeer farxañ xañ farxañ soto ajan mayum tëmb kenn jàndam guddi gi lay duur mbër bëf jaxañ-jaxañ gu yàpp mango derkesi nii maa xooti bitel karaso cosaan aada ca maam la ciy reen sunguf doom xob lépp xam naa nañ koy jële nañ koy jëlee nañ koy jiriñoo la may àndal ba nit ki mën koo jël faj ko te dootul feebar man maa ngi garab goo xam ne nii pourtant soo tëlee ñeent fukki ma jégalu si wax sëñ bi tëlee ñeent fukki at juróom fukki ak juróom-benn fukki at te judduwaale woo ko mu del su ma la ko joxee même pas 30 minutes nga doon góor da dund ba dee dootoo dootoo naan garab boobu te dootoo tëlee wër na Sëriñ Tuuba te pourtant sam papa ba may tarbiwu ci moom du garab yooyu laa doon topp rawaanam bii laa doon ut ke ñuy wax booy mu ngi fi jàng na bind na lu mot. junni bi liifur sama pap mu ngi wii junni bi liifur bindandoo ko sama pap te taxul mu jël tam xay saa man mi maa ko nangu badara bajaan mii jël bind na ba sonn taxul tam saa ñëw ma ñëw na pap ñëw ñii toog ci yow di bind ngay bindal ñëpp di bindal mbàkke mbàkke yi yóbbu ma jàng ndax ma bind ma bind ma am li ñuy am mu ne ma dama toog ne li ne ci man yow mii laa koy jox samay doom bàyyi ñu ngi fii maa fi gën a nekk xale ci góor ñoom ñëpp ñuy taaw yi kenn amu ci jinne bi man mii la topp te nangu nañu noonu la mbir mi tëddee loolu moo waral tant bii ma créé si lu nekk nag ki nekk bii ngeen di gis muy soppee na bi bii moo ubbi da ngeen foog ne bii mooy clinique bi bii présentable la rek dañ koy présentable ba ci kanam bu ñu paree maa ngi créé boo xam ne nii un milliard genn wàll moo koy tabax. ñaar téeméeri doomu aadama ñoo fa war a liggéey ñu ngi ci te ngi ci te dinaa ko tabax pourtant du état du sëriñ du genn ku mën a def ci sa doole ñaan rek laa soxla ci loolu te dinaa ko def ndax dama bëgg yóbbu cosaan aada ca man dimbali mbindeef yi feebar taxawu leen ñi bëgg borom kër jar ñi bëgg doom am ko ñu bëgg yàlla may leen wërsëg ñu am ko ñi feebar muy luxu seeni jàngoro dootuñu ànd ak jàngoro waxuma luxus ni mu dañ jox la lii tax boo ko naanee dootoo ko amati te dootoo feebar wala boo feebaratee yu tuuti lay doon ndax wér lu fu mu newul rek dara nekk wér moo jiitu ci bàkk nu doom aadama jaamu yàlla gin mën a sax dàkk te loo ñaan suñu borom bu ma defal fii ñi fi nekk ñépp mu ëpp baatin xam ngeen ni kii yamul ak man ci lenn sànq dama ne ko toog gii ma toog yow ci kaw maa ngi koy regretté maa ngi koy jéggul mu a ma nangul naa la ko ndax boo naree wàcc toog ci suuf moom loolu mënu ko supporter conférence bi moo wane di waaye mosul am bu leet tey sëñ Cheikh Awa Balla toog ma toog ci kaw bu leet tey mosul am ba may xale ba tey kii ba ma sam papa di yóbbu ci moom boobu xale bu tuuti laa doo dox dox gi sax dëgërugul yàgg nañu xam na ma xam na góor gi su jama njaay ñi ngi koy ñaanal yàlla xare ko ci biir dasuy màgg yi wax ji mënul gudd wax ji mënut a sori waaye di leen xamal ne leen jaamu yàlla rek moo war doomu aadama nañ ko ragal te topp ko ci léppam bàyyi moo yàlla gi bàyyi njaaloo gi bàyyi jëw yi bàyyi wax lu dul dëgg wax ba am mbooloo wax ba am alal taxul nga di borom xam-xam taxul nga jege yàlla ki jege yàlla gën la ragal yàlla ki la gën a ragal yàlla moo la gën a gën a jege yàlla ki la gën a fonk suñu borom bi xam borom bi ba du ko tooñ kooku moo la gën a xat jege suñu borom bi nangu leen loolu def ko bëri nañu fi amul wërsëg li leen tumuraankeel mënuñoo am lenn chaque jour ñuy dëkk ci tolof tolof caaxaan foo gi rek moom moo ki indi te foofu fu mu ne rek yonent bu du fa nekk Sëriñ tubaab du fa nekk te yàlla du la seet si ak ay malaakam yi am yërmande kon nañu ragal yàlla te topp ko ci léppam ñu ñaan yàlla lii chaque at dina am incha allah bu ñu deewoo yàlla may ñu dund ak wér at mu jot dinañ ko def te dina gën a yaatu gën a rëy bis bi nag bisub Seydina Muhammad la bisub Sëriñ Tuubaa la ñu jël ko teg ko ci loxo sëñ Mountakha mu sëñ Bassirou Mbacké ñaanal ko yàlla mën ko may wér ak gudd fan ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi njabootu maam Cheikh Fall gépp ñu dem te ji seen borom yàlla xare leen ci firdawsi ñu tëdd ci hôpitaux yi yàlla may leen wér ñi nga xam ne yàlla boole na lañ ak man te du rek liñ bëgg ñooñu ku ci ñëw yàlla may la wér ku ci ñëw yàlla faj say aajo soo leen déggee may dugg ci cadre bu jinn du ko am jinne rek moo ëpp xam-xam wala mu am xam-xam déedéet fànn xam-xam yi uuti te bari dëgg dinaa xam dara sama borom mu di alxuraan maa ngi koy topp di ko jàng nasaraan gi it maa ngi koy jàng waaye du njàng professionnel waaye bu yàggee mu nekk njàng professionnel ndax bëgg naa def lu kenn deful wax lu kenn waxul jëf lu kenn jëful loolu nag la ma koy may ma jël sama jëmm ji jóbbal ko si Sëriñ Bamba Xaadim Mustafa te si laa sax dàq ak bëgg rasulillahi fonk sama waajur bu jigéen bi def ko ni jamaal lu bëgg ma ne ci lu mu bañ ma bañ ko lu mu ma tere ma bàyyi ko lu ma sant ma def jour bi conférence bi ba amee def na ma boo demee ci tànt bi ñett yi dinaa la ko teera ma ne ko lan mënuma bu fi génnee xaas bu fa wane kiraam bu fi wàccee jinne ndax xam ne ne mën naa ko maa ngi leen di jégalu di leen siyaara di leen baalu àq di leen baalu àq lañu nu wax yépp wax nañ ko damay présenté wu rek ci micro Tam saa waaye micro central moo Mohamed waaye micro Ousou Diama Ndiaye bi nga xam ne moo dëpp clinique bi ñu koy woowee Serigne Bass clinique médecine traditionnelle bu Serigne Bassirou Ndiaye soppi Seydina Mohamed yaakaar Cheikhul Khadim kooku mooy antenne bi kooku mooy loo bi ñëpp mën a présenté wu ñëpp mën ko xam am na nag sama xarit samay taalibe ñu baax ñi nga xam ne dama jëflanteeg ñoom ñu nekk ci bitim réew ñëw nañ maa ngi joué Aziz mi nga xam ne moo nekk fële ci pharmacien bi nekk. ci ñëw na ak délégation man docteur yi dañ may seeti pharmacien yi dañ may seeti ndax damay jël ay junni yi bari di ko dugal ci hôpital bi di ko boole traditionnel bi ba liggéey ko mu doon garab ma jox ko nit loolu wax yàlla xamale ma ak ñoom boole ma ak ñoom ñoom ñëpp siyaar na leen si siyaar sama mag sama papa yi fi ne sama nijaay bi jóge kees sëñ seex maa ngi lay siyaar ak délégation ak mbàkki mbàkki bi nga àndal Moustapha di siyaar ñëpp di jéggulu ñëpp di ñëpp ak di leen di siyaar tamit sëñ Ndongo Fall mi nga xam ne ni moom moo yar programme sécurité bi mu nekk gendarme bi nga xam ne dafa dem ba retraité sumi tëneem ay taxul délégation gendarme yi fi nekk yépp moo leen indi muy sëñ Ndongo Fall ak sécurité bi ñëw ak visite yi fi nekk te seen séerante ki nga xam ne moom moo jiite mbir mi mooy Ngom Moussa Ngom maa ngi lay ba pare di siyaar télévision yi fi jaar yëpp 2STV TFM ak télé bi nga xam ne ni moom mooy télé RTS 1 ak lampal TV bi nga xam ne ni suñ Touba rek lay nooyee di ziar njiitum réew njiit njiitu télé bi Serigne Aliou Thioum ak Serigne Baydi ak ñi fa nekk ñëpp Serigne Gueye Mouride Sadikh kii nga xam ne sama xarit la sama soppi la sama bëgguwaay la fonk ma lool nekk ca RTS 1 Francisca maa ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. di siyaar bàyyi laat njaay gis naa ko yuusu njaay awa njaay ñépp famille bi et tout quoi ruus yi nag ñëw nañ fi sànq ba tey ñi ngi traité ay malaat ci biti ñu nga xool ñi nga xam dañuy am problème dara lu leen métti ñu dem ci quoi ruus ñëw nañ fi ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaar di leen sant di leen gërëm ku ma fàtte balaa may joxe micro bi nañ daw jox ma tuuti ay tour ma leeral ko mu jeex wala temps bi jeex na dagg nañ sama temps la ma amoon wax naa ko sama wax jii mooy sama woote gii sama woote gii mooy Seydina Mohamed mooy Serigne Touba tàllal leen loxo yi illaahi yow yàlla la xat gi mu gaaw ñu bi ak sant si yërmandeem bi haajin maa ngi koy ñaan jël la xaafata jël jël ci kàttanam bi sam samin bi tam tamin bi affin sulimin tamit si sama yàlla bu ñu torox yàlla bu ñu sànku yàlla bu ñu lott te yàlla bu ñu xiif yàlla bu ñu rafle yàlla yàlla musal ci cat yeeg ndox yi bëj yeeg làmmiñ kas yu accident yeeg rab yàlla na yàlla musal ci xeetu liggéey boñ ak bañante ak siis ak soxor ak iñaan yàlla yàlla sàmm te iir ñu te dëkkal ñu ci géej gi xéewal yi yàlla may ñu wërsëg gu yokk di saawaan di daawaan ba firdaws yi màggee yàlla jàmmal ñu te suturaal ñu ci àdduna ak yomal xiyaam jéggal ñu bàkkaar yi njëkk ak yi mujj bàkkaar yi tey tey yu njëkk ak yu yëgul yi ñu xam ak yi ñu xamul ñu ngi sant yàlla julli ci Seydina Muhammad di waaw sëñ yàlla yàlla bu dal sa fan dama ne woon du ma tëj te joxe moom jël leen ñaan gi ñett ñaan rek laa ci joxe ndax temps bi amul waaw euh, timis jot na wala des na timis jot na nee nañ buñ jullee ba pare ñu joxe ñaan gi ba sekk daayira bi fële ca kees ñu ngi lay ziar gis nañ la buñ sañoon tey kuréel bi toog yëkkati waaye mën naa am balaa tànt bee jeex dañ ko yëkkati incha allah ñu may ñu julli timis ñu joxe ñaan googu suñ seex waxe 30 minutes yi mu fiy def mu ñaanal ñu tëj conférence bi ku ci nekk fi nga jigoon nga mu faa waxtu bi jot na ku mën julli julli ku mënu julli bu toog murna bi tarbiyatil muxtaar yàlla malaaka yaa ngay dagaan bur ngir bëgg a yor muhammadana fii sama walar di yàlla niir yaa nga maylu ligël ilal abati wal awkaar yallaaw njanaaw yana aa yàlla noo yor Mustafa di ko xol fil wukinaati la xoomal kulli yallaaw pour yàlla wax leen bi lisaanin aali ñëpp wedam alimatu sax di moo yor Mustafa laaw wa dara bi duri sadiyha wa albanoo yonen ba sax weenu day jooram wa yàllaaw sayyiduna muhammad alimatu yu rasulullahi yor bu rafet ngir yaari at la ko nampal fer na yàllaaw suwaybatun mas na ko nampal Abu Lahab goree ko ngir lam ko nampal wóor na yàllaaw wur yàlla fay na ko tax fii falasa bi xatan ci jëpp altine ngir njool makka yàllaaw sayyiduna Muhammad ci yetti weer la taxaw ànd ak xaleel di dox juróomi weer la dër mën sëkk yàllaaw magu bisam moo di magu fee ci doomi arab weeram di am at at ma dim lim fa yallaaw wakalama naasa takima bita sidihi mina soori fasi annut ki yallaaw sayyiduna muhammad ci fukki weer la di jàndal lompoñul lëfañul di mbel mbeli wax di waaxuy wéy fa yallaaw malaaka ñëw xar kanam tabaja yaay roxoom raxas ko yokku koy hitam muy waare yàllaaw xaatim ko tampe ko fa baatin fa pesa mu won junni malaayika fi diwaani yàllaaw sayyiduna